maxey simna nuun maxey mi ne Ousseynou Lo gen maxa no saate ref na Diohine maxey xeɗa roog xid oleke ndoki te ref xid 2021 a jeg Sénégal machallah xu andoona yee ko bug tamit jàmm a moƴo may Sénégal maxey xeɗana in maxey xeɗana fop machallah in fop in ndam o leng nqib o leng ref jàmm quoi parce que Sénégal in fop a mbogun quoi jegee séeréer jegee Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp machallah